sa démb xam sa tey xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na waaye ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak yéen ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ku mag di waxtaanee ku ñëpp xam ku jar a waxtaanee di waxtaanee ku amoon fit muy ngalaandu Juuf ngalaandu Juuf baayam John Logoro juuf la tudd di séeréer ndeyam di wolof tudd Déthié Gueye ana Ngalandu fu juddoo xanaa Ndar ana kañ la juddu 1875 fukki fan ak ñeent ci weeru septembre kooku mooy Ngalandu Diouf Ngalandu nag jàng na bi am jàngam jeexee mu def li ko war ne damay sotti xam-xam goney réew mi kon damay jàngale kat waaye xam lim bëgg xam lim teg réew mi xam fi mu bëgg a yóbbu réew mi tax ngalandu ne ku wutiti pexe doo defi pexe daal di nag daanu ci géewu politique bi ana lum njëkk a def moom ngalandu ngalandu dafa jël këruk tasukaayu xibaar muy ab journal mu tuddee ko Le Sénégal waaye 1909 ana Ngalandu lum def xanaa dem ñu fal ko mu toogal Tëngéej toogal ka ca kuréel gu ñu tuddee conseil général ba nga xam ne payam ndar la nekkoon booba nag ndar mooy payub réewu Afrique sow jant yépp tey làkk nasaraan te tubaab bi moom leen di France kon ñu jàpp ne. nit ku ñuul di af doomu Afrique bi nu njëkk a fal ca njëlbeenu colonisation ba ba tubaab bi toogee ba keroog mooy Ngalandou Diouf bu ngeen déggee conseil général nag mooy bànqaas bi nga xam ni mooy gën a koweeg bànqaas ci kuréel yi nu tegoon ngir nit ku ñuul ku nu noot ca jamono yooya mën a am cërub wax waaye juróomi at lañ ca teg ana lu ngalandu def mu ne Blaise kaay jiitu ma topp sa gannaaw daa jël Blaise nag yóbbu ko tëngeej képp ku fay borom kàddu am mbooloo mu topp sa gannaaw mu wan la ko képp kuy lébu te bokk ci pénc yi mu wan la ko ne kii mooy sama waay noona nag bu nu fàtte ne dafa dem guerre yi bi nga xamee ne guerre àdduna bi njëkk bi am na te booba ki ko ko digaloon mooy kilifaam waaye bi guerre bi jeexee muy 1918 ana Ngalandu nu mu def xanaa dugaat ci politique waaye nag ne jàngaleetut day wutum koom nekk ci njaay ak njënd Ngalandu Diouf looloo tax ca la nekk maire ana maireu fan maireu Tëngéej ñaata yoon la ko ne ay yooni yoon ñu wóolu ko rek saa laajee ñu dénk ko waaye ngalaandu loolu doyu ko ana ki ñuy waxtaanee ci xam sa démb xam sa tey mooy ka bañoon ku noot ku ñuul ana ku ñuy waxtaanee ci xam sa démb xam sa tey mooy ki bañoon ku jël nooteef di ko teg nit ki ñuy waxtaanee mooy ki fekkoon journal boobu ñu tudd la démocratie mu dem ànd ak ña ko sos di bind ngir waxi xalaatam kooku mooy Ngalandou Diouf. xam xam sa tey Ngalandou Diouf lu mu gëm da cay dem ba jeex lu mu gëmut da koy bañ ku ma àndal boo weddee sa ngëm mu la gannaaw looloo tax mu tàggoog Blaise an loolu tax mu tàggook moom daf na ko yow de Blaise dangaa jaxasoo ak. ñi nga xam ne dañuy tibb sunu alal di yóbbu muy tubaab nasaraan bi nga xam ne moom day jaayee ko jënd ca noona nag ngalaandu jaakaarloo ak Blaise mi nga xam ne moo ko jiite woon daa di jaakaarloo moom nag ci parti boo xam ne mi ngi tudd parti républicain nationaliste ngalaandu Diouf jaakaarloo ak moom ca palum député ya 1928 lañ njëkk a jaakaarloo 1932 ñu jàkkaarloo waat waaye booba jàkkaarloo ba métti na tar na yaana ba ñeenti gox yi nga xam ne ñoo amoon sañ-sañu wote di Dakar gore ak Ndar ak Tëngéej ña fa dëkkut sax ña ngi ko doon waxtaane lan la ñi jàpp tey mooy wayi fanaal ya yañ daan taggee ngalandu mooy wayu fanaal ya yan daan tagge Blaise Diagne mooy wayu fanaal ya nga xam ne ba tey nit yaa ngi koy fàttaliku di ko way ku la ñu lay taggal sa maam waaye seeni jongante yooyu diggante Ngalandu ak Blaise jàpp nañ ci ne nit ñi dañ daan defi mbooloo di àndi daw jàpp nañ ci ne guddi gi dañ daan defi sabaraka tëgg ñii ne ñoom jaañ lañu àndal ñii ne juuf lañ àndal muy ñooñ jaañ ak ñoom juuf jaañist yi ak juufist yi kenn ku ne foo demoon rek fekk nga leen fa ñuy xëccoo loola nag la ko jeexal mooy Blaise génn àdduna 1934 bi nga xamee ne Blaise génn na àdduna ah ñu toll ci ñaar fukki fan ak ñeent nag ci weeru sulet ci 1934 ñu daal ne ñuy wote nan ñëw ndax Blaise génn na àdduna te war nañ ko wuutal kuy toog ca barabam ngalandu juuf daal di jàkkaarloog maître Lamine Gueye maître Lamine Gueye moom bokk ci ndonal Diagne waaye Diagniste boobu nag dafa mujjoon a wut parti boppam moom lamin Gueye maître Lamine Gueye jàkkaarloog Ngalandou Ngalandou nag ñi àndoon ak moom bëri lool waaye li nga mën a jàpp mooy am na ci jigéen ju ràññu yoo xam ne ku dégg tur wax xam ne mag la ku dégg tur wax xam ne borom fit la muy jàmbaar jooju di ndate yàlla fàll ngalandu juuf daal di xëccoog Lamine Gueye mu xëccoog Lamine Gueye nag ngalandu am ndam ci kawam loolu ko yóbbu France ca foofa ñu naan Palais Bourbon ca Paris mu daal di fay toog 1936 ñaari at ca gannaaw mu laajaat ñu joxaat ko nga Galandou Diouf nag ba mu demee dafa bokk ci mbooloo mi nga xam ne moom lañ tuddee gauche indépendante waaye yamu ca kuréel gi nga xam ne moo doon taxawal lu jëm ci Algérie dafa dem bokk ca ak kuréel gi nga xam ne moo doon waxal réew yi tubaab bi noot ak réew yi nga xam ne dañ leen jox genn wàllu moomeel seen bopp muy protectorat. ana lu Ngalandou Diouf def bëgg ay nitam am jàmm mu daal di jël aw yoon bind ko muy proposition de loi ne am na ñoo xam ne demoon nañ guerre ci AEF ak AOF te jox nañ leen raayo bu tudd légion d'honneur ñii jox nañ leen médaille bu tudd médaille militaire ñenn ñi amuñu ko waaye demoon nañ guerre ba tey ñu ngi leen di fay ñii nekk ay ancien combattant ñooñu ñëpp mu ne juddoowun Ndar xëy na juddoo wun juddoowun Gorée juddoowun Dakar waaye yelloo nañ ñu jox leen kayitu juddu ak carte buy wane ne ñoom ci ñi mën a def ak dind leen bokk waaye gis ngeen de bi nga xamee ne France Allemagne dugg na fa ñu ngi ci deuxième ger mondiale muy ñaareelu guerru àdduna bi bi nga xamee ne maréchal Philippe Pétain dafa ne moom day ànd ak waa France ñi nangu ngir Allemagne moom France Ngalandu dafa lank ne du ko wote mooy projet de loi boobu ñu doon wotee fukki fan ci weeru juillet ci 1940 ca Vichy nga xam ne maréchal Pétain ca lañ ne ko la neex def ndax Allemagne moom na France loolu tax ñaar fukk fan ak benn ci weeru juin 1940 moom Galandou mu ànd ak député bii di Georges Mandel ak kii di Jean Jay ak Pierre Mendès France mu dugg ci gaal gu mag googu tudd Massilia jëm Maroc ne ñoom du fekkee googu gàcce ñoom député yooyu ndax dañuy dem buñ demee gàddaay teg fa gouvernement boo xam ne day joŋante ak gouvernement Vichy waaye ba ban àggee Casablanca rek lañ leen jàpp ne ràpp tëj Ngalandou Diouf sax kenn mayaatu ko mu dellu lu dul 18 juillet 1940 waaye Ngalandou feebar dal na ko Ngalandou 6 août 1941 ca Cannes ca France fala génnee àdduna ay yaxam nag ñu ngi leen delloo si ndar 27 août 1950 ngir sagal ko ngir sargal ko ndax moom mooy doomi ndar ji doon nit ku ñuul gi njëkk a fal ca conseil général moom moo doon meeru Rufisque ba waaye moom moo juddu di doomi séeréer ak wolof moom moo judd di jàngalekat moom moo daan Blaise Diagne moo daanoon la min Guèye moo ne woon Vichy du ma nangu yow Pétain nga jël France di ko jaay allemand ndax ñàkk am fitu dem xeex yi nag mooy Ngalandu juuf doon nit ku doon bañ ku tooñ nit ku ñuul Ngalandu mi ngi tëdd fii ci senegal moom lañ doon waxtaanee tey ci xam sa démb xam sa tey xam sa xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe may ànd ci ak archive national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut